mbokki senegaal seen mbokki réew Boubacar kamara moo leen di nuyu fas yéene waxtaan ak yéen ci mbëkk mi gannaaw bi ñu yeewoo tey ci naqar ak tiis ndax gaal gu yëpp ay ndawi réew mi ba fees moo toj ba faat bakkan yu ñuy lim te noppeeguñu mbëkk mi lijaa say lajj la bu kenn mënul tanxam may bind taalif yaay yi bàyyam ci atum 2006 jagleel ko xale yi faatu ci géej gi seeni waajur ni yaay baayam juuf di leen jooy te seen rongoñ feragul bi ma ciy métitlu mëdd bi géej gi di teeroo sunuy ndaw yi wuti lu tane ñàkk xëy bi ñu nekkee ba mu jaral leen tayle seen bakkan ci xottu gerte xalaatuma woon ni fukki at ak ñeent ci tey mbir mi dina gëna a tar dige politiciens yi mënul nëbb ne ëllëgu ndaw ñi tàbbi na ci lëndëm te benn taxawaay bu dëgër te mucc ayib àddoogul suñu naal nag ñun bi ñu duppee tabax ittewoo na faggul xale yi xëy ngir réew mi sax ci jàmm fas ko yéene nase ci alal ji ñuy jëlee ci suñuy moomeel yi ne gàññ ci suuf si géej gi mbéy mi càmm gi napp gi xarañu loxo maanaam artisanat caada ak weraakoñ maanaam tourisme jubluwaay bu bees bu jël yoonu toggee alal gi ci sunu réew mooy tax ñu utal ndaw ñi xëy bu sax te am njëriñ jubluwaay bu bees mooy tax ñu faj aajo askan wi jubbanti njàng mi ak wér yaram wi sooxe dimbale néew ji doole ji te fexe ba tukki tegu ci yoon wu sedd dem ak jàmm ñëw ak jàmm bàyyi fi jàmm fekk fa jàmm ñibbi fekk fi jàmm jéem tële wante ñàkk jéem musiba la ci ku ñu dénk réew nguur bu mënul dox ci lii te bawoo lu yàqu yowa jërëjëf ce poème écrit le 30 mai 2006, est dédié aux jeunes Sénégalais contraints à l'émigration à bord de pirogues de fortune. Son titre, Yahi Bayam. Yahi Bayam Diouf est la mère de Alun Mar, son fils unique, âgé de 26 ans, emporté par la mer le 12 avril 2006 sur le périlleux chemin de l'émigration clandestine en Europe. elle avait encouragé son fils à partir. Il savait qu'il risquait sa vie, mais il a fait un choix réfléchi, disait-elle, les larmes aux yeux. Yahi Bayam, qui habite à Tcharoy, dans la banlieue dakaroise, avait vu son fils économiser difficilement 575 000 francs CFA, soit 875 euros, en élevant des moutons après s'être essayé à la maçonnerie et à la peinture.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 jaayante ak sama ngor ngir tekki ni samay moroomu gor witti reseñ bitim réew moo ma gënal tumranke ci sama réew jaral na ma yaayi baayam fori néew moo ko gënal dund bu njëriñ la néew ñi may yedd ngir ma toog nañu ma fexeel ci lu ma toog su dem laajoon raam ma fabu def ni soo ma mënula téye tee nga ma teg ci yoon wu tey ndax ñii nee nañu ma yey li may sóobu maa ko tey bu ñu mënee diw yegg na ci jàmm sama yaakaar yokk may waaj dem ci jàmm bu ñu mënee diw des na ci géej gi sama àdduna tukki te duma tere tukki